bokk yi ñu suivre ci Equivox TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar comme ni ngeen ko xamee nag tey fi ñu toog ñu ngi biir baara ki ñu toogal moom mooy leket bu baara di doomi baara yaakaar naa buñ ko waxee li tax ñu wax ko mooy ah mbër la boo xam ne toppoon nañ ko tey mu dem bëri ji ak France yàlla may ko ndam ñëw fekk ko ci këram mu toog di dallu fas yéene nag seq moom waxtaan mbër maa ngi lay ziar di la wax félicitation waaw Babacar maa ngi lay delloo bu baax a baax a baax di am kontaan bu rëy di la wax jërëjëf merci waaw. am nga jàmm bu baax. waaw waaw maa ngi am jàmm bu baax a baax di nuyu ñëpp ñi ma ñu nekkoon sama ginnaaw di may jàppale leen di sant bu baax di sant waa Baara waa ñoomi dem ba si ndox bi gërëm waa Caalaan. Caalaan Baasaar Baasul ñoo joor jinda la ñëpp maa leen di sant di leen gërëm mhm. di nuyu spécial bi waa ñoomi ak Baara bi ma jógee. esew Mayamba Saame ñëpp suma dëkkandoo yëpp maa leen nuyu baax a baax leen ziar. Mm-hmm. macha allah dëkk yooyu mu lim moom defe naa boo ko limee danga naan Sénégambia bi bi day gën a jaxasoo mais man fi mu bëgg ñëw ak yow mooy leket baara dëkk la mais leket bi ma ci xamoon mooy bi ñu def cere ak ay affaire ak yooyu lu tax nga taamu leket. waaw mooy aada cosaan bi rek comme li may wax rek naan moo fi jiitu paan moo fi jiitu si woo cosaan dëgg la waaw te si ñun si la ñuy yëngatu mooy làmb. moo tax man di tuddee sama bopp Leket. waaw lamb doomu séeréer quoi. waaw doomu séeréer puis ndey ak baay kay jëpp séeréer. Mm-hmm. nga taamu Leket te Leket mu mel ni euh, ndab la loo xam ne ndab lu am barke la ah. dafa am barke parce que am na barke nekk na aada bu rëy rëy boo xamante ne lu bari secret yu bari dañ ko ciy def. waaw ak ay tegtal yu bëree bëree bari bëri. waaw si biir Leket. Uh-huh. Mm-hmm. kon tur na la. waaw sant yàlla bu baax a baax jig na ma trop parce que jamono yi may mbapat façon tur bu nekk laa doon bëre mooy nekk xale di jéem a ki bërantu ni mais leket bi daal bu ma si jëlee làmb ba tey moom nekk na lu moo xamante ne daf ma jig trop sax waaw jig na mais làmb fan la làmb fii rek baara laa nekkoon di fontu làmb mais melu woon noonu ma nekk fii di daw jàng ba egg Joal foofu nag laa defee mbappat waaw boobu ñu ngi tegal ay saaku ceeb ay paquet de vitale yi nii mbapatu xale yi nii poids yi ñoo doon nekk saaku ceeb ñuy bëre foofu noonu. Mhm. après si laa del si baara continuer sama bëre dugg si àll bi ay fas dem ba commencé di bëre Sénégal. mais bu bu su ma dikkee Joal boobu yan bu nga fa doon faral di jànkoonte mbër yu mag yoo fay daan gis foofu. waaw suñ garaa muñ koy wax a di caalaan jamono muy jël làmbu fiño bi foofu la ma fekk boobu làmb dugg na ma trop ñoom papier général papier général jamono yi buy dugg si làmb boo déggee ne papier ñëw ñ ñëpp ay dem bàyyi suñ soxla yi dem seetaani ko waaw papier général. non dafa mënoon ambiance bu duggee si géew moom doo yàq sa ticket day bëre dafay fecc waaw day ñëw sa yenn saa dugg fecc làmb ji tëju problème ba commencé waaw moom Papis waaw mbër mu safoon mbër mu saf xorom trop trop moom moom daanaan dëgg la woon wax dëgg ah, mën a fecc mën a bëre loolu moom mu ngi woon si moom mhm. dëgg la mhm. Mhm. nee na bàyyi na làmb nee na ma laaj naa ko arène nationale mu ne bàyyi naa làmb mu ne ko lu tax mu ne parce que léegi sëriñ laa sëriñ la ah kon de war naa dem si moom mu ñaanal ma ah, man moom su ma amatee combat moom <laughs> dinaa fa dem mu ñaanal ma. ah xamante yéen ñaar. waaw man moom xam naa ko nii rek waaye du comme loolu laal waaw moom tamit euh, xam naa ne bàyyi na ma xel. parce que waaw da ngay gis ne man fa may dem yaw ñoom ñëpp dañ doon ñëw comme jàppale booy affaire règlement yi noonu boobu man maa ngi demal Gambie te tournoi CEDEAO. Gambie waaw. kon daal làmb ji foofu la la noonu la dikke ci yow làmb dóor bi fii ci Gambie kañ ko fi commencé def. fii suma first combat premier combat mooy suma combat ak Bébé Sos boobu dafa ma fekk sax maa ngi génn maa ngi topp mbapat àll yi ay daasi laame côté Toubacouta yi nii dañ ma kool ñu ne ma ah, ñoom Sos dañ fi bëgg ñëw dañu bëgg a stade euh, bëre dóor Gambia fii mais dañu jël Sénégal ñett juróom-benn juróomi mbër jël Gambie juróomi mbër fii xam nga si dañ ma kool man tam ma bàyyi suma yite boobu maa ngi doon bëre final daasi laame. ci laa daw si fii ñëw ñëw toog gis ñu waxtaan boobu mu nekkoon suma force combat mm-hmm. ñun juróomi sénégalais ak juróomi gambien si mbaay man la yaa yàlla mayoon ndam mm-hmm. si gambien man maa njëkk bu bëre premier combat ma am victoire mm-hmm. waaw. sénégalais yooyu ko ci jàpp turam ba tey si làmb ñu ñëwoon si làmb jooju ñoom ñëpp kañ Zos tàng ji eh, ak Cartouche waaw ak Angleterre ak Nick waaw ñooñu moom jàpp naa seen ak bé ak Bébé ma doon bëreel waa Bébé Sos waaw waaw ñooñu moom jàppoon naa seen tur uh-huh. hmm. ñooñu jàppoon nga seen tur maanaam euh, léegi muy lu am solo kon mu mel ni kon bëri dóor bi ñaata combat nga ci def. bii mooy fukkeelu combat bii mooy suma dix combat am na noof ak benn match nul buñ buñ ma fi jaay. <laughs> match ah, luy match nul buñ la jaay. <laughs> maa ko yéen daan mooy ndab luñ seppi suma loxo wi ca mais dinaa fa sukkaat lekk ba suur. loolu fan la amee. Gàmbi fii la kañ. su diggante xoyantaan. da ngaa mat si nil wala lu tax nangu woo loolu. non dañ nil ñu jox ko victoire. nilu ngeen. waaw dañ ni roi des arènes du ko jëlee si nii dafa war a leer man moom bëre ba daan moom ba nu ma ko ma daane leen ko roi bi mm. damay xam ne ciram la mm-hmm. waaw mais dañ nii ñu jox ko roi tam nga roi moom dafa war a leer. kon yow roi xoyantaan da nga la déggee. non nangul naa ko ko sax parce que yàlla ma ko ci ral waaye nu mu demee bu fi doon man moom damay nangoo daan ma jël ko parce que togg buur la man bu ma ko jël dama daan maa euh, si kii laa ko jëlee maa ko waa lañ doon fa bëre fii waaw. comme kii mooy roi kii mooy roi gars yi tegal ñu ma daan ko jël ko kon moom dafa ma waroon daan jël ko. mais xuy daal daanu la bi mu koy jël. noo daanu ma daanu ma. Hmm. dañ mag si nii. kon yaa ngi xaar leeral. waaw maa ngi toog di xaar leeral. maa ngi toog di xaar yee. xuy moom man nga ci moom lu bari. waaw a ah, xuy <laughs> mbër la rek comme man. Hmm. waaw te yi moom mu ngi jóg mag mu ngi jëm mag te man moom mooy <laughs> mag. xuy kay xuy kay moom a mag fuuf sax mais ndaanaan la moom moom ndaanaan la moom wax dëgg xuy moo la mag am na solo léegi yow yaa wax loolu ma ñëw nag fi nga jóge tey li tax ñu toog fii muy combat boo xam ne bari woon na coow defe naa bi mu taxawee ak léegi yàgg na sa combat ak France kañ la taxaw may dugg ci biir combat bi combat bi yàgg nañ di koy dox nag boobu jamono comme ni ko gars yi waxee ay ñeenti at wala juróomi at si gannaaw ñu ngi koy laam-laamee ñi di wax nii nii ma ne leen am tey bu bëree ba yegg si fu ma nekk duma ko mos a bañ te man li ma bugg mu dem ba jég boppam ba am poids dëgg bi nga xam ne ñëppam foofu lañ koy yaakaare ma doog a jël bëre ak moom te li ma wax loolu moom moo am combat bi wàccaay bi métti woon na trop man de bu may signé contrat bëri door ba tey mm. bii moo ci gën a métti waaw parce que dañuy waaj di fomm mm-hmm. ba ñetti yoon comme boo waajee ba mu ses nii da ngay fomm nga commencé waaj zéro dafa mel ni ñetti combat nga wàcc ci benn combat bi wàccaay bi moo métti woon ak vraiment bi doo na moo toog yaa ngi entraîné def lu nekk di ñaan lu fu nekk tam waaw so da ngay dem ba mu ses ñu jàkkaarloo ñu cancel so am nga dafa métti. Hmm. kon combat bi ci yàggaay di leen lu mat lu ëpp un teg kañ du ko manqué ñaari at bariwul de. Mm-hmm. bi ñëwagul ba corona ñëw ba jeex jàll. waaw so waaye sant yàlla nekkut eh, ku nekk du comme du suma coobare wala coobare promoteur wala keneen. comme mbas la rek ñëpp xam nañ ne balaa bu wàcc la soo dañ koy sant yàlla bu baax a baax a baax ñoo xam ne lii yàlla moo ko def soo bu jeexee rek jeex na ñu xool waat leneen mm-hmm. mais gisoo yoonu gudd yàgg yàgg dina yegg si. Mm-hmm. kera bu ma ñëwee yaa ngeen def seen signature contrat seen dernier face to face coow li bëri foofu supporters yi nga ne ko say supporters say supporters ñoo ma yab ma yow yaboo ma lu tax nga wax ko loolu da koo xam da ngeen am fu ngeen jaar walla waaw non moom dafa mel ni dafa ma xam fekk dafa maa xam mais man maa ko xam wax naa ko ko. ma ne ko non waaw loolu la parce que nit ki lu mu mun ak lu mu am. Mm. da ko koy nangul. Mm. man ñëpp xam nañ ci ma bëre fii man kese maa fi nekk di bëre juróomi catégorie yoo xamante ne bokkul mm. muy damay bëre mbapat tournoi CEDEAO dama koy bëre gero koromel freestyle bëre yëpp dama koy bëre. ba pare damay bëre bëre dóor te damay réemal réew mi fu ne bëre naa suñu mbapat séeréer amul bëre bu ma jël drapeau mbapat séeréer juróom la poussière raw gàddu leese luur yëpp laa jël amul catégorie bu ma jëlul so amatuma dara lu may prouver si làmb nit ki nag boo gisee nga dégg ne kii def na nii da ngay topp nga xool li muy bëre nii mais bul toog naan am naa doole wala nii ak nii ak nii déedéet loolu làmb. kon moom da laa réeré. waaw daf maa réeré woon mbir bu baax ba te waxoon naa ko ma ne ko stade bi ma la daane woon foofu laa lay daanaatee. waaw waxoon naa la ko si jàkkaarloo ba muy wax ne man loolu kii boobu ma nii ak nii dañoo mos na comme Svelta bi Sénégal di def nii ñun ñu ngi koy wax fii regional championship comme sa réseau sa régime dañ koy def nii waaw may bëre 86 kilos man juróom-ñetti yoon laa ko bëre at juróom-ñetti yëpp maa jël 86 kilos yi kenn mosu ko jël suma loxo saa ñu ko tegee man may jël 86 euh, kilos. da ngeen faa daje ma ak moom final ma daan ko mu ñëw naan jamono yi dafa yàgg ak nii ak nii <laughs> suma booy itam daan ko suma ñaari booy daan nañ ko moom Franc ñoom ay doomu séeréer lañ ci lii lañ yaroo mbapat lañ yaroo lañ xam waaw. am na solo kon daal sa digganteeg moom coow li yàgg na combat bi taxaw tey damay ñëw directement léegi ci biir combat bi bi nga waajee di dem bi nga wàccee ci biir stade jom loo yëg. waaw yëg naa kontaan bu rëy parce que man mi di wax ni sax li am tey mm, boo naa wax ni sax mosul am. parce que tey li ma yëg ba pare ñëpp a génn ci mooy mbokk parce que xam naa si combat bu ñu nag moo jur loolu parce que combat bu ñu jegee façon bëre bu nekk bëre naa ko fii nii nit yi may gunge di ñëw ñëw ak ay victoire mais nag tey day neex suba mu naqari si liñ jógee moo tax ku nekk suma mbokk yëpp jog sot amul mag amul xale amul góor amul jigéen ñëpp jokk sot too gisee tey ñu génn te ñun suñu yoon bi neexut comme ni ma la koy waxee yoonu ndox la mais ñëpp a bàyyi see ñi tey ñiy jógee si àll yi Fass Thiaw Kër Maari Ndunkébe ñëpp a dog seen yite ñëw gunge ma am si combat mais bu ma duggee stade yëg naa loo xamante ni tey ma ñëw lam gis loo xamante ni mosuma ko gis si làmbu Gambie fii woykati séeréer di woy loolu kese gàllaaj la ci man mm. waaw. Momo Ngom day doon tëgg. tamit di teg lu neex loo xamante ne tey comme ni ma ko waxee rek gàllaaj lay doon si yow. woykat baa ngi woy tëggaa mi ngi may mu may fàttali jamono may mbappa dëgg mm. boo duggee si làmb te boo duggee si làmb bu dee final ngay bëre wala muy woy di nga xam ne muy woy ñun dañ dugg si rek waa sangé changé woy ma xam ne kii lu muy woy Mariama doon woy tamit Mariama Jàkkeer bu ñaaxar Mariama waaw loolu laa gis moo tax ma ñëw bési moom ma ne ko mais nanam dégg naa li ngay wax lu mu doon wax boobu boobu waxal ma lim woy boobu mu ngi naan ngóor sum mais sum naan dangaan maak ni caalaane uh-huh. waaw boobu mu ngi woy ngóor sum kooku jàmbaar dëgg la woon caalaan kooku histirim daal mais dina dinaa la mos a wax jaar-jaaram dinaa la yow ba caalaan. ba allah kon yow Mariama da laa laal tey. trop trop trop trop man kañ ci laa xam ne lamb ji moom. tey moom waaw waaw. comme nga xam ne lamb ji leer. waaw non lamb ji yàgg naa leer trop yàgg na sax leer. mais boobu nga gën a sentir sa bopp. voilà si laa gën a yëg suma bopp asuma man nag ñëw gis gis suma fan si suma supporter yi ñëpp kenn taxaw ñëpp a am confiance parce que xam nañ ma hmm, xam nañ seen mbër. ngeen dugg si biir bëre bi. ma gis ngeen liwaatoo un trois nga dóor ko benn arrêt de gauche bu dal. waaw moom lu ñu ko doon gëmloo mooy leket toujours loolu lañ ko nii tam am na ñi tam yoo xam ne dañuy ñëw damay romb sax di waat si yàlla daf lay dumm ba nga tëdd daf lay dumm daan la ma ne ko yéen dëgg ngeen bind xamu leen ma de loolu rek mbéy saay ma ree la dem parce que lu ñu ko doon gëmloo mooy yaa ko ëpp doole wala yaa ko lii nii fekk loolu du du làmb. Hmm. Hmm. man France dafa ñëw simeeku teg rek ma xam lu muy indi si bëre moo tax ma déglu ko tuuti mais xam naa su ma ko dégloon parce que moom moo gën a soxla ak nu doon waxee xam naa nu mu doon waxee du bëre noonu di waat si yàlla di waat fu ma la fekk dama lay duma wala bu taal bi suuf lee man dox sa kaw xam naa du ñëw parce que xam naa bu baax doful dina jàpp ko hmm. waaw moo tax ma ko jéem a cokaas noonu muy dóor même dóora mi moom yàlla xam doy na. xeexu mais xeex ngeen xeex xeex ngeen de. waaw nañ moom. mu yóbbu la ardo. waaw yóbbu na ma man moom tàmm naa ardo moom wax dëgg <laughs> ardo moom tàmm naa ko moom hmm. loolu moom aw ma si problème parce que bëre boo leen jàppante bu bëri du am boo nekkee fii di sànni di nga perte sa kii di door fi kii di dóor fi kii di dóor fii te doole duñ dóor bu eggul moom day wàññi doole moo tax ma koy bàyyi mu gën a door mais lu mu day dal suma loxo bi mais daf lay wékk loolu yëpp da nga koy jàngal li ngay internet dóor bu daru da nga penteroo énergie bu baax moo tax ma jàpp ba dëgër si laa ko dóor ku bu dal mu xaw a jaxasoo xam naa day ñëw te bu ñëwee dinaa ko daan moom xam na lu bu baax yow bi nga demee ardo boobu sax fit euh, xamoo xaw am jaaxle. non non non loolu dama koy comme Eumeu Sène rek man loolu daf may tàngaloo comme euh, ardo nii wala gis suma deret nii. daf may tàngaloo day tax su ma ñëwaatee damay dem soo ñëwul sama damay dem. boo ñëwul da ngay dem waaw damay dem bëri. ok mm. bi nga jógee ardo. waaw deret bi mun naa bari mu yàqale da fekk du nekk sa gaañu gaañu bu ndaw lay doon fekk sa yaram mu ngi tàng deret bi sotteeku loolu yëpp mun naa am mu yàqal la bëre mais boo bu buñ ko kiyeere boo ñëwaatee danga war a gaaw woone bëre làmb ji jeexee. ma gis ngeen daw jaxasoo bëree mu jël si la nga euh, surxal ko mu ra mu mu raam arbitre ngeen génn ci mu la capté nga daw rocce ko bàyyi ko fa arbitre atte jeexal combat bi ne quatre waaw noonu rek laa mënoon a demee parce que tey boo xoolee comme. quatre appuis am na. quatre appuis leer nañ moom kañ fu mu nekk huit la am kañ parce que dem naa tous mu daana foofu quatre appuis ñëwaat si daana foofu quatre appuis waaw ci biir tuus bi bi nga bi bi <laughs> muy fecc noonu daal. jële bu métti la daanu day France gañ moom tey xaw ma lu mu ko indaale waaye tey moom du besam. tey du besam du besam. mais moom nanguwul ne nanguwul nanguwul de nanguwul ne da nga koo daan de. Eh, na nangu nay xool caméra yi rek. bu fekkee caméra yu baax ñëw nañ edit nañ aw man man. Equivox bii ngay waxee kay lu leer nañ lañ fay wane. voilà waa génneel caméra bi yow di yaa doon jël te du. waaw waaw vidéo kay ñu ngi moom. da ngay génne da génne. Ah, génne nga jël ko ndànk-ndànk voilà nga xool ba nekkul cadre bi. voilà boo xoolee combat Yékini ak Balla Gaye dafa xaw a feeñ foofu noonu bu muy jël tànkam bi. te Balla di ko dóor tànk Balla xam nga tey Balla njëkk naa noojoo Yékini mm-hmm, mu jóg ñu continuer action. Mm-hmm. yow da ngay gis ne nooju boobu ak kii bi dafa xaw a niroo ah, voilà. làmb rek moom moo ñu disee wuñ defuñ dara bi mooy moom moo moo moo ñu boole moo ñuy tàqale. Mm-hmm. waaw. moom euh, damay gis ka ni dafa mel ni wala boog moom dama ko dégg sax ci bàkkoom tey mu mel ni moom dañ koy day nekk mbër mu ñu àtte ñàkkal Gambie wala dañ ko fi xeex walla non fan fii moom kenn xewu fa kenn xëy na lu muy def moo desee leer rek am nga ni tamit euh, boo liggéey ak ni da leen di jox cër jox leen gëdd bi bu baax soo xoolee tuusam tey lu mu tuus man bu nekkoon man hmm. duma defee noonu wala duma waxee noonu. li mu fecc daa bëri wala dafa jaaruloon wala. dafa bëri ba pare nu mu doon bàkkoo tey du yoon sax mu koy bàkkoo dama koy xelal comme suma mbokku mbër dama dégg mu si ay waxam bàkkoo mu naan xaw ma nga dekk si dëkk bi nga tekke si dëkk bi moo ko génn hmm. mel ne am na ñooy sànni xeer bi ñëwaat naan xaw ma am fi jabar am fi doom ay citizen lañ citizen maanaam mooy nationalité lañ xaw ma nationalité lañ ne xaw ma nationalité maanaam doomu kayitu daa doomu réew mi la ko waaw ba pare yaa ngi génn sa bopp si réew mi sa teranga yëf fii la nekk ñëw nga xam nga sa teranga mu ngi fii loolu du problème ñëppan nañ ne comme niñ ko waxee rek fii ñii fii lañ dëkk ñii fii lañ dëkk ñëpp a guddee fanaan so da ngay gis ne warta waxee noonu wala mais da xëy na xalaatam moo ko meloon noonu tey waaw ba pare tuus bi tam di nga ko dafa bëri. fecc bi fecc bi dafa bëri. ci moom soo demee be xam ne combat bi ñuy tuus ñaar nit ñoo des ñett wàññil fecc bi. yow kon looloo tax xanaa bi ngay fecc nga yemale sa fecc. man tuus gisuma la nga fecc lu bëri de. déedéet man tuus bi dama koy yemale euh, pas bu nekk benn yoon ñaar laa ko def ma bàyyi ma tuus lu em rek dem toog. maanaam concentré wu ci combat bi. combat bi voilà parce que loolu moo ma fa yóbbu. parce que dafa am si lu ma jógee am lu ma bugg tamit waaw moom ma fa yóbbu. mel ni kon daal su ma déggee France miy wax mbër mu am expérience la mu xam lan mooy làmb la wala boog lekket miy wax ma naan France sax su ma déggee leket biy wax daa mel ni ko am expérience su làmb la ku xam li muy def la. waaw man làmb dama si yàgg. billaay bu may def poussière te du xam nga poussière. si laa jël poids léger nag boobu maa ngi dekk mboru poussière si laa yéeg léger ma jël nag soo nekk li nga dund ko làmb da nga koy dund ba pare nga doog koo xam ba pare sooy dem da ngay ànd ak ñu xam làmb ak ñu ay kilifa. Ah, moom moom nag daa mel ne ànd naa ki ñu xam làmb de. waa ànd na ñu xam làmb. gis naa fa Serigne Ndiaye 2. waaw Serigne <laughs> waaw loolu moom dëgg la moom ñëpp gis nañ ko fa mais da ngay xool ñi ñu dañuy dem bàyyi la am na ñu nga dëkkal fii nii da ngay xool ñoom euh, mbër lañ nga ànd ak ñoom si làmb ñi boo jaaxle ñu génn sa bu dee bu gisee bu Serigne Ndiaye nu muy def mais làmb dafa làmb dafa doy waar da nga koy xam ba pare dund ko am na foo xam ne soo si tollee sa xel bi yëpp si làmb ji nga ko a def nga xool nekk sa gannaaw parce que supporter dafa métti fans dafa métti trop trop trop trop dafa métti man suma fans yi billaay aw ma seen fay combat bi amul leen lu jaral ci kaw suuf am na ñoo xam ne dañ maa wax tegal carrément ne billaay boo ñàkkee combat bi dañuy xaru carrément lañ ko wax billaay wallaay du kenn nit du ñaari nit te wax bu ñu doon wax seen xol lañ ko doon tibbee waaye lépp lu ñu ma demal ne yàlla baax na parce que man xam naa ki ma ko sekkal ma ne ko du adversaire yi fi jàll de kuñ ko sekkal la. maanaam da ngaa xam ne kii yaa man man maa ko man ba pare dafa bari wax du wax benn wax boo xamante ne dafa tegu si yoon. France déedéet. xanaa da laa ma sa wax loolu naqari wala. France lu ma wax naqari bari na. non comme xam nga rek loolu yëpp mun naa nekk ay waxu mbër nii sax mais am na kàddu yu fi jot a jàllale kàlla bu ba tey dafa ma marke ban la ban la ci. comme tey su may rak suma rakk man soo gisee suma yaay di jooy tey bu muy dem si kër gi bu muy génn war nga see bàyyi xel ñëpp naa ko kay maire kay gis naa muy jooy. suñ caat bi. waaw dafa des si géej bi gaal boobu desoon Mourtani kooku moo gënoon a bëgg combat bi si kaw suuf. suma rakk la moo ma doon doxal yéen su ma amee lu ma war a jëlee si àll moo doon jël saak dem ñëw ak su may fan si lu mot war na mot kaar tey ñëw nañ sax mm-hmm. ñu ngi jógee Fass Thiawo ak waa Baaray mooy gaal boobu desoon Mourtani suux si géej gi su ma rakk ak sumay fans ñu bëri ñoom ñoo des si géej bi foofu noonu ñu xam nga ñu leen di jooy noppeeguñu muy interview di interview ma ma tooñ ko ma ne ko français amul ay fans mu ne man maa ko amul ay fans man suma fans yi ci géej bi lañ dee. xam mu ne mu ne mu lëppi fans waaw mu man samay fans yi dañ des si géej bi te moom am na ko am bu ñëwaan laa mu baara si kër gi muy dal kooku yaa joojo yàlla na ko yàlla jéggal yërëm moom foofu la doon dal ci géej te kooku dafa des si géej bi am na yenn kàddu yoo ba tey. ba tey dafa des suma xol bi waaye nag damay xam ne doomu aadama dafa juum soo dañ koy yi ñuy foyee parce que ñun dañu am lu ñu naxari. waaw comme ay ndaw yu xamante ne dañ doon dem waaw faatu nga wax ko baree dafa wax si biir kàddu bi soo dégloo interview bi di nga xam ne kii ni muy waxee nii dafa juum. Mhm. mais jégal nga ko xanaa loolu. non man kañ loolu passé na bu yàgg dama koy ñaax rek pour comme mbokku mbor la te xam naa tamit dëgg la moom jàmbaar la am na fi te lépp lu muy def tamit dafa bëgg a teral ay waajuram mais na gën a xool doxalinam ak waxam ak kàddoom parce que dafa am solo waaw mais bu ñu la denk micro rek ngay waxee lu na ne loolu rafetul. xam nga Modou Lo. Ah, dañ loo xam naa ko bu baax xàmme naa ko boo ko. <laughs> ñu bëri dañ ne da nga am ak moom trace ci làmb ci ñu ngi leen di doxalee ci làmb xaw a bokk yooyu am na ñu ma dégg koy wax de. waaw waaw niñ ma koy jooyee nag lu bari waaye nag gëm naa ne métier bi lañ bokk waaw ñoo bokk métier bi te moom ndaanaan la nag Modou Lo ndaanaan la de. daanaan dëgg dëgg dëgg la. Mhm. Mhm. man moom dama ko respecté moom wax dëgg ne yàlla. am na ci moom. waa lu bare. lu bare mooy am fulla bi nu mu toll. Mhm. yax bi tollu woon comme am na ay ma voilà muy loolu mais gom boppam moo ko yóbbee ci lu mu nekk. ak am fit fit moom moom man moom loolu doy na ma ci moom ak mun waaye tamit mun na bëre. waaw mën na bëre trop trop trop. loolu moom dama koy seet si moom te dama koy dund si moom yee. waaw am na fit mun na bëre bi. Eh. looy tàggatoo ak looy wax sa waaw looy tàggu sax ak looy wax sa soxna. waaw su ma soxna moom maaso spécial la koy defal sant ko bu baax waaw sonn na si man trop foog naa buñ see ba léegi lii mooy foog naa lii mooy fausse combat mosta fekke suma kom buñ see ñu mu ngi doog am combat te combat bi lu si laax dafa bari problème mu famille billaay wallaay parce que dëkk bu mu nekk. am na ñoo fa xam ne dañ fay jàppale France ngemb soo mu juróon coow lu bari benn famille boo xam ne jaxasoo xam nga tëj boppi nit yëpp man leen waaye ñoo yëpp duñ dugg si géew bi man ak fa euh, France ñooy nekk si digg géew bi ma ko làmb ak dëj ñoo yem boo dee dañ lay sang jullee la gunge la ba si bàmmeel ba pax ba li nga fa jëf nga fay fekk so làmb tam noonu la làmb loo munti def ñu gunge ñaan def lu nekk bu demee saako yooyu ñëpp dañuy dellu ginnaaw yéen ñaar ngeen des foofu so waaye moom tam sant yàlla bu baax dama koy sant di koy gërëm di gërëm suma yaay bu baax nu mu sonne si ñun parce que tey boo gisu tey bàyyi yaay taxaw la waaw dañ koy sante yàlla dañ koy sante bu baax a baax a baax di koy gërëm di sant suma àndal ñëpp suma booy yi may àndal parce que dañu am combat ñi dem Dakar ñi dem fu nekk di waajal waaye man suma xale yi laa am lu ma munti am combat lu mu rëy rëy wala bes lu mu rëy rëy damay toog ñoom liggéey ak ñoom waaw soo demal di sant di sant waa Baara suñu alkaali yi nekk fii ñi may jàppale ñëpp ñoom Serigne Ndour Alaaji Fay ñëpp maa leen sant bu baax a baax a baax a baax leen di gërëm aw ma seen fay gox bi yëpp tund ñoom mi ëppa ñoom mi ñëpp dañ sonn si man waa Serekunda su may fan si nekk foofu sant naa leen bu baax a baax gërëm leen sant suma waaye suma xarit kooku moom maaso spécial Adama dama koy sant bu baax di koy gërëm ak suma doom day Kunta combat bi lu muy rëy rëy man la ak moom suma ménager ba laaj Kéba aw ma seen fay waaw moom hi alaaj Kéba lu mu def ci combat bi billaay wala defoon na combat bi su jàllee mu bàyyi làmb mën a ko jar ko nañ jéemaat rek waaye lépp dañ koy sant yàlla bu baax làmb moo mel noonu waa di leen sant yéen di leen ak gërëm seen matuwaay bi ngeen jël jógee ba Sénégal di ñëw fii nii di ñu jël xam nga di ñuy siwal si àdduna bi tamit coo den masawu coono bu baax leen di ñaanal yàlla seen liggéey bi jëm kanam dem ba jur ay télé télé télé yu bëree bëree bëree bëri mu ànd ak yi wala ak si kattanu yàlla i o fogole sereer mi simna nuun a paax mi yo ɓiy nuun mi simna nuun gidma nuun reta bo mbinna calan gidma yaay ke fi paap ke leya nuun ne salla ke a mbadiida andun fop bo xireena kiino kiin me gidmam to simnam leya nuun ne salla ke fop a mbadiida gidmam nuun a paax a paax a paax a paax xeɗana fop jam iyo jajam <laughs>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 téléphone bi c'est le 77 219 99 99 le 77 219 99 99 Serigne Daouda Seck sa coono daal di jeex.